alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlaana muhammadinil amiin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin. maa ngi tàmbali samay kàddu ci turu sunu borom. di wax bismillahi rahmaani rahim di sant sunu borom moom mi borom bi ne fii di julli di sëlmal ci ab yonenteem moom mi gën a tedd ci ñu yàlla yónni ci mbindeef yi di ñaan julli googu law ba ci ay ñoñom ak i saxaabaam mbooleem seen ak képp ku leen ku leen topp ci rafetal ba bis penc loolu maa ngi nuyu groupe whatsapp salaatu ala nabi maa ngi leen di nuyu nuyób islaam te mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jàmmi suñ borom ak yërmaandeem ak barkeem yàlla na nekk ci yéen ginnaaw loolu nag tey am mbégte fas yéene ñëw waxtaan ak yéen ci genn salaatu ala nabi goo xam ni sëriñ Tuubaa moo ko def mu nekk ci xasiidak mawaahibun naafix fii madaa'ihi shaafi nga xam ne salaatu googu aw bayit la ci biir xasida gi di salaatu gu yéeme di salaatu bari njariñ di di salaatu gu bari mbóot salaatu googu wala béy doo mooy salli wa sallim ala almukallim wa duuri yaasim wa sun wihaai salli wa sallim ala almukallim wa duuri yaasim wa sun wiaai wa bayit woowu la di salaatu googu nga xam ni salaatu gii mu ngi nekk ci biir xasiidak mawaahibu naafi fii madaai fii madaaihi saafi salaatu googu lañ fa yéenee ànd ak yéen décortiquer ko wax njariñ yi ci nekk wax ngeneen yi ci nekk wax secret ak mbóot yi ci nekk incha allah bu ne ko sunu borom maye mu def ko nag ngir liggéey la ko sëñ ngir liggéey ko sëriñ Tuubaa muy bayit wu doy waar xam ne sëñ bi da cee dëxëñ yéene waxtaan bayit woowu ci xasiida mawaahibu naafi' fii madaa'ihi shaafi' bayit wu yéemu woowu bayit wu neex woowu te di salaatu ala nabi moom la ñu fas yéene waxtaane xam nga mawaahibu naafi' xasiid ak tagg la day tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mooy xasiida koo xam ni am na tarjumaan ci njëlbeen gi am tarjumaan ci mujj gi sëñ daan ko tàmbalee ci salaatul faatiha moom xasida yi yokk ci baat yaa akramu ba mu ne allahuma allahuma yaa akramu salli ala sayyidina muhammadin al faatihi lima uxliqa wal xaatimi lima sabax naasiri al xaq bil xaq wal haadi ila siraatika al mustaqim wa ala alihi xaq xadri miqdaari azim salaatu googu nga tàmbalee xasida yi tekki ne na nga def tagg yii wacc hal haadihi al amda kon mooy wan ne xasida yi xasida tagg la na nga def xasida tagg yii muy bit ji di xëcce jëme ci gëm yàlla gu mat sëkk jëme ci lislaam gu mat sëkk jëme ci ihsaan gu mat sëkk waaye na nga def tagg yii te mooy mawaahibu naafi muy bit ji jëme ci taxay gu gu dappetu taxay gu sax waaye xasida gi wala tagg yii di mawaahibu naafi na nga ci bégal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fu ñu ko jàngee fu ñu ko bindee fu ñu ko ubbee sax di ko xool ubbi xasida rek di xool na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bég yow suñu borom nangoo nangoo lii ma la ñaan na nga def xasida gi di mawaahibu naafi te tagg yii na ko def mu bokk ca la urul ayn yu di ak xale yi nekk ci biir ajana ko def mu bokk ca urul ayn yi di ko jàng ca di ko way ca ajana ak wildaan yi nga xam ne ñoo nekk ca ajana waaye na def tagg yii te mooy mawaahibu naafi mu bokk ci cant yi nga gën a bëgg yow suñu borom loolu mooy tarjumaan ju njëkk yi waaye nag xam nga sëñ foo fekk xasida taggam da koy mixé ak julli ci yant bi liyam tidaahun bi salaati musija man sëñ Tuubaa yàlla may am naa ay tagg yoo xam ne dama koy mixé dama koy jaxase ak ay julli ci yant bi sallallahu alayhi wa sallam foo fekk xasida julli ci yant bi bu sëñ Tuubaa def da cay taggaali yant bi usalli alayhi bi mathin muniyah kon foo gis xasida tagg julli ci yonent bi sëñ bi da koy mixé ak julli ci yonent bi foo gisee xasida julli bi sëñ sëñ bi da koy mixé ak tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax xasida Mawaahibu Naafi am na lu toll ci euh, ay lu toll ci juróom yoo xam ne nii julli bi sallallahu alayhi wa sallam moom la lii may wax ko ne ko nee na lakal tifaati yaa rattilaati baxda salaati mahasanayi waaw sama gestu ñeel na la yow yonent bi ginnaaw ba ma ci yow àndan di la tagg baxda baxda salaat yi maxasanaa yi wax na ci biir sax salaatu sitta bi mat ci sitta taatihi batta maxasisaa yi sëñ Tuubaa nee na juróom benn weer damay julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallama te mooy di tàmbalee weer rajab bi ñu nekk ba at mi jeex euh, juróom benn weer yi njëkk yi te mooy tam xarit ba euh, maami koor jeex muy jumaada saaniya moom itam dama ciy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon sëñ Tuubaa loolu noonu la séddale am atam juróom-benn at juróom-benn weer tagg yonent bi juróom-benn weer julli ci yonent bi sallallahu wax naa la tagg yi muy tagg yonent bi da koy mixé ak julli ci yonent bi li yem ti daaxum bis salaati musija wax naa la julli gi mu julli ci yonent bi da koy boole di tagg yonent bi usalli alayhi bi matihin mulih damay tag damay julli ci yonent bi boole koog nag mu ànd ak di tagg ci di ko tagg kon gis nga noonu sëñ tubaa sëriñ tubaa nag xasiidat naafi julli gi mu njëkk a julli mooy salla alayka bi man ladayka musnin alayka inda rimaahi alayka sallam dahban wa karram man bika adam alax alax julli gi gim njëkk a julli ci yonte bi ci xasiida gi mooy julli googu waaye gis nga ñaari bayit la ko def julli gi ñaari bayit la ko def julli gi bayitu boppam te mooy salla alayka sëlmal gi bayitu boppam alayka sallam daxban wa karram man bi ka azam axalatimaay te gis nga foofu daa jàkkaarloog yonent bi salla alayka yàlla na yàlla julli ci yow alayka sallam yàlla na yàlla sëlmal ci yow ñaareelu julli gi li tax may leeral ni ngir wane julli gi euh, taxawaay bi mu am ci biir xasida gi wax naa la julli gi mu njëkk julli ci ñaari bayit la ko def ñaari la julli gi mooy bi mu ne salaatu sitta bi matxi sitta taatihi batta batta maha tisaa i juróom benn weer tàgge yonent bi juróom benn weer julli ci yonent bi ànd ak dara yonent bi ba mu ko defee mu ne alayhi salla rabbun ajalla fafaaxa kulla fil atxiyaai alayhi sallam wal amra faqam faqam wal ajra azam fil itam dafa julli ci yonent bi mel ne yonent bi néewu fi alayhi salla yàlla na yàlla julli ci moom bokkut ak salla alayka yàlla na yàlla julli ci yow gis nga moom itam ñaari bayit la ko def alayhi salla rabun ajala fa faxa kulla fi l asqiya benn bayit alayhi sallam wal amra faxam wal ajra azam fi asqiya yi moom itam beneen yu doy waar yu doy sax léegi ñetteelu bayit bi ñetteelu salaatu gi gi mooy alayhi salla mooy salli wa sallim ala almukallim wa dóor yaxtim wa sun wiaai mooy ñetteelu salaatu ala nabi gi nekk ci xasida gi mooy ñetteelu salaatu ala nabi gi nekk ci xasida gi salli wa sallim ala al mukallim ala al mukallim wa dóor yaxsin wa suluhaay da ngay gis ne ñaari salaatu yi di ma njëkk a wax bu ci ne ñaari bayit la ko sëñ Tuubaa def ñaari bayit waaye gis nga bi mu ñëwee ci bayit wii nag salli wa salli moom benn bayit la ko def mu boole ci julli ci yonent bi boole ci sëlmal ci yonent bi kon bayit wii ñuy waxtaane am na particularité am na xusuusiya ni moom rek mooy wala bokk na ci bayit yi nga xamee ne ñaari bayit yi nga xamee ne ñoo nekk ci biir xasida gi te ñoom ñaar rek la sëñ bi boole julli ak sëmal ci yonent bi ci benn bayit ñeenteelu faraatu gi mooy ala rasuli babil rasuli li nay ni suuli ahmaaru aa salli dawaama wasit salaama waskur xilaama li yóbbi naay ñaari bayit la ba nag te mooy juróomeelu salaatu bi mooy salli wa sallim alal mutammim wa kulli yaxsim bilantiaai waaw googu moom itam genn salaatu rekk la maanaam benn bayit la sëñ bi taslim mu jeex tarjumaan bi soog a ñëw nag te mooy julli ci yonent bi wax ne yàlla yàlla nga bigal yonent bi ci way wii ci waxtu wu ne ci saa su ne te ki way way ki way xasiida gii ki way way yii na ko may yow yàlla sa ngërëm lu mag ci araf wu ne xaraf wu ci ne ci biir ma wax yi bu sëñ Tuubaa ñaan yàlla defal ko ci ngërëmal lu mag li ngërëmam lu mag li su ma bañu doon guddal dinaa leen wax ñaata araf la waaye sëñ bi yemul yow suñu boroom na nga may képp kuy jàng xasida gii te mooy Mawaahibu Naafi na nga ko may texe ñaari kër yi amin yaa rabbal alamin kon juróomi salaatu yooyu ñoo nekk ci biir xasida ak Mawaahibu Naafi ñu seetlu ne soo xoolee salaatu gu ci ne wala salaatu gu njëkk gi wala salaatu bu njëkk gi sëñ bi mi ko tàmbalee yaa xayra waayi yaa xayra raahi yaa xayra daayi di ci sama yi bàkk yàlla kañ yàlla soog a julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa bu njëkk bi bu dee ñaareel gi sëñ bi dafa wax ne juróom benn weer yi day tagg yonent bi juróom benn weer yi mu julli ci yonent bi soo ko wax ne yàlla na yàlla julli ci moom sëlmal ci moom ñetteel ba la ko jiitu mooy yaa dal jalaali yaa mutaali yaa xayrawaali ajib duaa yi waaw bakk yàlla kañ yàlla ba noppi ne ko yàlla yàlla nga nangu sama ñaan soo ko julli ci yonent bi ñeent ñeenteel ba ala rasuli la ko tàmbalee yàlla nekk ci kaw yonent bi nga xam ne mooy buntu bu sóol ba ngir am li ñu bëgg soo ko julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam salaat yooyu salaatu gi ñuy waxtaane nag wax naa ne juróomi salaatu ala nabi ñoo nekk ci xasida bi ci wayi yi laa wax nag tarjumaan ji am na ay julli ci yonent bi loolu indiwaale ma ko ndax bokkul ci way yi wax naa la ko euh, tarjumaan ji njëkk ji salaatul faatihi mi ngi ci ak geneen salaatu te mooy ba mu ne wa farrih taala alayhi wa kon tarjumaan ji am na ñaar tarjumaan ji njëkk bu dee tarjumaan ji mujj